coono waaye lii de moom coono yi de moom yéen ñëpp dañu nekk.

sëñ Gallo sëñ Gallo bi baax na si baax yàlla suma aju maa gudd. asalaamaaleykum. Thank you. déedéet bu baax déedéet bu baax déedéet bu baax

ci yoon bi képp ku sa bët ma sa xonq sa xel si moom lay dem Mbàkke kon boo fi nekkee ñu ñëw fii allié dañuy ñëw ba sa kër siyaar la sàkk nga ñaanal ñu ndax taxawaay bi nga xamante ni moom la yore woon mat la woon na ko te murid yëpp ak jul yépp gisoon nañ seen bopp man mii di wax yow rek nekk doy na ma si misaal dama ko mas a fekk ci kër gu kër sëriñ Fallou mu ni ma bu may ñibbi sama kër nga yóbbu ma ma jël sama oto heure boobu benn mégaan la ànd ak moom ci kanam jaar ak moom biir marché okaas yóbbu ko ba këram mu daal dugg si biir néeg bi am ñaari mbir yu ma jox wax ma ñaari mbir yooyu nag yaakaar Mbàkke moom kenn ëpp lu ma ko si réew mi sant naa yàlla bu baax <laughs> waaw du lu ñuy wax si kaw waaye daal kenn ëpp lu ma ko si ku ma bokkal sant naa si loolu ba tax na Mbàkke dinaa la wax loo xam ne bi ma yàlla dogalee natt bii am ci biir kaso bi jooy naa Alaaji Baara ndax bu fu nekkoon kenn du ma jàpp wallahi xasim boobu laa jooy si kaso bi beneen bi ma jooyaate mooy bi ma manootee ni ma dañ lay yóbbu ngir toroxal ku sant Mbàkke boobu jooy naa ndax jàpp naa sama àddina kenn du ma manoote kon nag ma lay seetal lépp nag li ko waral mooy liggéey Sëriñ Tuubaa gi may liggéey Sëriñ Tuubaa ay nit taxaw ni doo ko fi defe lu ma dal taxawal askan wi ma ko yóbbu te loolu nag Mbàkke sama ruu gii rek mooy tax loolu bañ a amati tant que maa ngi dund dinaa taxawal Touba tant maa ngi dund sama jëm ak sama lépp sëñ Touba laa ko jox loolu nag ma la koy seedeel di ko seedeel ñii nga xam ñoom laa àndal nga xamante ñoom laa bokkul ci coalition Wallu ak Yewwi muy Abdou Mbacke Ndaw ak sëñ Cheikh Diora ak ki nga xamal mooy Fatou Mbow ñoo bokk nekk ci liste bi ak soxna Assou Mbacke Abdou Borom Dër bi nga xamante ni moom tamit mi ngi bay waaram ci benn côté bi kon nga xam ñëpp sax njaboot lan ñoo ngi lay ñaan di la ñaan yàlla bu baax a baax nga yàgg fi te wér xam ni kat Mbàkke ñun buñ la gisee suñ xel day gën a dal ndax bokkoo si ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla day fu ñu toog deru Mbàkke Mbàkke yàqu fa bokkoo si de bokkoo si ñu nga xam dañ leen jox alal aussi tamit ñuy jaay seen xeet wala seen mbokk bokkoo si ñun nag ñëpp ñoo bokk dëkk bi waaye day sa jikko naw nañu ko sa fulla xam nañu ko sa nangoo liggéey tamit xam nañu ko ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di sàkk nga ñaanal ñu lii nga xam mooy sun coalition bi wallu ak yewi bi nga xam président Ablaye Wade taalib Alaaji Baara la ba mu koy woo di ko jox ndigal ni ko sëñ Tuubaa moo lay woo maa nga toog tey kii def lii boobu mi ngi jooy boo fekk ngeen ko wasalaamaaleykum wa rahmatulah jaf seex seex masha maa ngi leen di nuyu kenn ku ñu sa ak sant di nuyu sëñ Galas mii ñu ñëw ci këram te xam ne ñun moom ñun waa Alieu de sëñ Galas taxaw nañu bu baax a baax lenn lu ñuy jooy loo xam ne si daal sëñ Gallas yëg na ko ci fajuwul amul bari na nag moom ñu koy fakkastal fakkastal yooyu nag ni koy defee ñu baax ñëpp lañ ko koy defee waaye nag moom jaamu yàlla ak liggéey rek la nekk Aliou nangul kenn bëtam xonq fi ñun ñii luñ soxla ci moom muy guddi muy bëccëg bu ko yëgee mu faju léegi nag ñoo ngi sàkku mu ñaanal ñu lii ñuy dox te xam na ne moom bu ñaanee suñu borom dana ko def ndax jaamu yàlla ak lekku ñàqam rek lay def demul ci benn président naan ko ubbil ma wala fëggal ma raamalul yenn jigéen itam pour loon ko jox moom mi ngi ci roqam bii ko bàyyam bàyyi woon mu jàppale waa allié gépp nag muy góor jigéen mag ak ndaw sëñ galas ku ko soxla fii nga koy fekk fii nag lu ko ko fi loo ko dis mu faj loolu moom maa ngi leen koy seereel bu dee dangaa tawat aw ordonnance boo agsee sëñ galas dana la jox loola su dee kun jàpp sëñ galas da koy da koy da koy saafara comme na mu ko war a defee bu dee loo manqué boo ñëwee fii mu dem gis nga ni ñu yombaleel noonu la nekkee ak ñëpp demul ci benn président tam di ko rang euh, jaamuwul kenn tam moom daal mi ngi ci li ko maamam bàyyee woon ak bàyyam ba sëñ Alaaji Baara di dundal allié nag euh, ñu ngi leen ci sant ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax nag di ko ci sàkku mu ñaanal ñu ci lii ñuy dox ñu am ci ndam lu kawe suñ jor na xam na ne bu ko ñaanee dana am ndax la ko bàyyam bàyyee woon rek ca la nekk yéen ñëpp mën ngeen koo seere ñun ñi dëkk moom mën nañ koo seere ñoo ngi koy ñaanal bu baax nag yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaan koro bi ma ñëwee ci moom ne ko Cheikh Abdou day Cheikh Abdou Mbacke Baara dooli koro koro bi ma ñëwee ci moom fii na ko Cheikh Abdou Mbacke Baara Doli de koro bi Aliya lëndëmee ba ñëpp sàcc yeeg ñëpp sonal ñu mu ñu ñëw mu ñëw fii ci sëñ Moustapha sëñ Moustapha ne ko sëñ sëriñ Moustapha ne ko Aliya de lëndëm na lool dane ko bu soob yàlla bu may dem muy saafaroo koroog ba mu xëyee ba mu fi gontee ci suba ba mu xëyee làmp yi ñëw allié loolu moom mën ko koo seereel waa allié gépp mën nañ ko koo seereel koroog bii ma ñëwee ci moom na ko Cheikh Abdou Day su ma sañoon nga ñaanal ko ba euh, campagne bii ñuy def suñ boroom génnee ko ba mu ànd kook ñun na xam ne bu ko àndee ak ñun luñ bëgg dina saafarawo mu ne ma tàllalal loxo sa jëmm ji laa koy ñaan ba ma ko taflilee ci suba ga laa xëy woote fii ci allié allié ngeen wuy si ma mu ñaanal yaakaar naa kon buñ dikkaatee fii àndaat ak Cheikh Abdou lool sunu xelwal naa dal sëñ Galas ñoo ngi sa ñoo ngi sa kanam di la saaku nga ñaanal ñu ci lii ñuy dox ñu am ci ndam lu kawe suñ jort ndax xam na ne boo ko ñaanee suñ borom dana la ci fekk ndax yow lekku riba jaamu woo kenn lu lew rek ngay lekk ak dunde saw ñaq ñoo ngi lay ñaanal gudd fan ak wér euh, nga yàgg ci suñ kanam lool jooyuñu alaaji baara benn yoon ngir yow jërë ngeen jëf jógee këram ba mujj ay mbokkam ñoo xam ne ñoo bokk jënd rek jóg ñëw ne eh, ñu ngi koy seet si man awma seen fay waaw li ci rax lépp la ci rax waaye li am na lu jiitu loolu lépp nag mooy li ñu bokk bokk suñ tubaa bokk dara ji bokk jëflante gi bokk wëlëre bi bokk lépp rek nga xam ne yàgg nañoo jëflante ñu ngi lay won léegi benn photo boo xam ni ñoo ko àndoon maa yow muy sama mbirum bopp moo xam ni dama koo woote woon nga bàyyi si lépp toog ba a jeex ñëw ci man eh, nekk fa eh, bis bisub waaw sëñ Abdou mi it noonu ñu seq lu baree bari loo xam ne liggéey nañ lu bari maa moom ay at lu nekk ci mairie Mbàkke yëpp ñu ngi liggéey waaw yow mi it noonu euh, ñu si bari fii ku ci santul Mbàkke taalib Sëñ Tuubaa nga kon maanaam nii ngeen def man dama leen war a ubbil rek ndax man wurmaate sama buntu ndax yàlla dogal na euh, ñu bokk ci njabootu alaaj baara ngeen bokk ci njabootam ngeen daa jëflanteeg alaaj baara kon tey bu ngeen bëggee ñëw ku bokk ci alaaj baara wuru leen tëju waaw ubbil nañ leen bunt yi Euh, te ngeen xam ne xol bu leer laa leen euh, teeroo te bu soobee yàlla lépp lu ngeen fi sàkku de ni ngeen ko daa sàkku ci alaj baara alaj baara jógu fii ndax yéenay alaj baara waaw comme ni ngeen koy yaakaare ci man noonu la nekkee ci yéen kon moom man sama xel dafa dal yow nag ñu ngi lay masu coono ci la daloon ci jamono yëpp waaye loolu kenn yéenewulu ko ndax nit ku baax nga nit ku yiw nga kenn wul laa loolu daal moom xam naa du sab cër moom waaw kon maa ngi lay ñaanal loolu yal ko yàlla teggi te yal ko yàlla teggil bépp jullit ndax loolu du lu gën ci nit ku yiw waaw kon kon loolu lu la dab rek la waaye du sa jikko te du doon loo xam ne euh, luñ loo war a am la daal li nga war a am du loolu waaw kon ñoo la ñaana daal yàlla mu woyofal sa xol nga muñ la jàll te li suñ kanam yàlla suturaal la nga nekk ni nga war a nekkee jërëjëf waaw kontaan nañ baax a baax waaw baax dafa ne yow yàlla sunu borom sunu wërsëg yi bu nekkee ci kaw nee ko cëng fi suuf bu nekkee fi suuf nee ko pulet mu génn bu génnee te sori dara du ko jar nee ko ñoret mu jege su jegee na bari bu baree na barkeel su la su barkeelee nañ la ci jaaw bu ñu la ci jaaw moo nangul ñu jaamu gi soo ñu nanguloo jaamu gi nañ fi yàgg suñ fi yàggee ku ñu xaar yar na xaaddi xaar xaaddi xaaf xafaan xafara xaf dëkk dàkk ndegam dee mënta ñàkk nun daal bu ñuy dee nañ ne gëm mi nelaw nga ne tegg fi loxol seexul xaddi mu ne wàkk bokk ne nga ne du xuus aljana ñaan ak sëñ Fall waaw ñuy am fii Cheikh Ndiaye euh, Touba Alieu bokk si ñi nga xam ne ñoo daan ànd euh, sëriñ falu Euh, ñu ko gën ko xam ci Serigne Gallas Kaltoum daan ko jàppale fële ca allié jamono bii nga xam ne euh, nag euh, élection législative yi jub si na te Serigne Gallas Kaltoum moom mu dem rallier ci benn Bokk Yaakaar ñu investir ko foofu moom nag dafa mujjee taqali ko sëriñ Gallas Kaltoum moomu dem àndi jeek ki nga xam ne mooy Serigne seex coro ak waa coalition wàllu et yeewi ngir jàppale leen ci élection yi Serigne Cheikh Ndiaye euh, ñu koy nuyu bëgg tamit gis nañ ko tey ci convent bi nga xam ne ànd na ci depuis ci suba ba léegi nga xam ne ñi ngi doon wër Touba dem nañ même ci localité muy Aliya waaye mun ñu gis ko mu nekk koo xam ne jàmbaar la tamit ci mobilisation ku ami nit macha allah euh, Serigne Cheikh Ndiaye li ñu lay laaj mooy nan ngeen dundee euh, wër bi nga xam ne doon ngeen ko wër tey biir tuuba ak tamit allié bi nga xam ne dëkk nga fa te euh, ñu gis ne jamono yi yeewi mi ngi fay commencé am doole. waaw ginnaaw bi ma la nuyoo maa ngi nuyu bokk jullit yëpp bokk taalibe ah am ci kontaante lool nag ndax gis naa ci sama bopp lool lool ndax wax dëgg yàlla nin def tey jii noonu la as def noonu la nit itam di àndeek ay nawleem ndax wàccee sa bopp ba kër goo fëgg ñu yàkkamti laa ubbil loolu gis nañ ko ci délégation bii ñu àndoon muy sëñ Cheikh Coro Mbacke sëriñ ab Abdou Mbacke Ndaw sëriñ Abdou Mbacke Baara Dolli gis nañ ko gis nañ ci àndu gor daal ndax as gor su wàccee boppam xam ne taalibe sëriñ Touba la jëm ci waa kër sëriñ Touba loolu dana yomb lool lool wax dëgg yàlla teertu na leen bu baax a baax. bi waaw waaw mooy mooy comme li ma la wax léegi rek as as gor bu bu wàccee boppam xam ne taalibeeb Serigne Touba di dem ci waa kër Serigne Touba loolu moom bu ko lëggee rek day yomb lool te gis naa ne sëñ Cheikh Thioro moom liñ ko dénk moo ko sëñ Abdou Mbacke Baara Dolli ak sëñ Abdou Mbacke Ndaw lëggéey nañ ko ba mu mat sëkk ndax fépp fu ndem rek

ñu jage woon ko nag daan ànd ak moom bi ñu ànd ak moom nag yor sunu ni euh, regroupement chauffeur yor ay association ñu yaakaar ñu ñun tam ñu yaakaar kat di jël association bi ak maire de mbootaay yi di yut Serigne Gallas bi ñu demee ba xam ne Serigne Gallas Kaltoum mii li koy yut dafa jàpp ne lu lu mérito la wala lu mënul ñàkk la moo tax ñu taxaw na ko nag ñoo gor ñun àndaloon ñëpp ñun daal àndatunoog yow waaw waa nekk yëg ngeen gis ci sëñ Cheikh Thioro yëg ngeen gis sëñ Cheikh Thioro sëñ Cheikh Thioro xam na nu ñu téyee as xam na nu ñu àndee ak as sëñ Cheikh Thioro loo ko jox rek du taxaw na lii lu ma yeyoo la day xam ne euh, lii ñii ànd ak moom taalibe yi maamam lan ànd ak moom ngir maamam mu tëye leen ngir maamam waaw waaw waa am naa ñaari baat yu ma bëggoon a leeral ci aliyaatam ndax dafa am soxna suñuy wax soxna uh, ami Mbàkke daas nekk aliya moom ma nga dëkk ba daaru nam amu fa kenn ñëw na aliya ab seesam la loolu la ñuy wax askan wi na leen loolu nekkul nee na délégué de yi waa këram la loolee tam ñun waa aliya dañuy taxaw weddi ko na loolee nekkul ñun waa aliya ànduñoo ak ami Mbàkke daas tey ànduñoo ak moom ëllëg délégué de quartier yu muy wéef fanweeri junni ci julli géeg naan mi ngi leen jox aw jiwu ak yor ñaari kiloy soble ñaari kiloy pomme di wër nit ñi di leen filma di ko joxe loolee na xam ne mi ngi nax boppam ñun waa allié duñ ay ndóol topp ci kenn tam muy bopp ñaari kiloy soble wala ñaari kiloy pomme di ko jox ay nit ñooñee muy wéef seen xaalis tam nag na xam ne sànni na ko ni ñun waa allié ànduñoo ak ñoom tey ànduñoo ak ñoom suba ca délégué de bu ne benn benn délégué de quartier lay doon waa am waa koñ ba ànd ak waa allié moo ëpp solo ci di mbubboo ay délégué de quartier ca na ko wóor na mi ngi sànni yëfam ca mi ngi nax boppam allié daal ñoo ngi lay xamal ne ñun waa allié wan nan ginnaaw wan na wan nan ginnaaw ku ànd ak Macky sàll ku ànd ak drapeau góor jigéen bi ñun wan nan ko ginnaaw ñu ngi ànd ak waa kër Serigne Touba ba tey ba ëllëg bu beneen yoon incha allah.